dégagé nañu une enveloppe de cinquante trois milliards mooy juróom fukki milliards yu teg ak ñetti milliards yoo xamante ne nii ci wàllu ay impôt ak ci droit de douane yu waroon a yu yi bi moomoon mu renoncé ci maanaam mu bàyyi ko ngir prix yi gën a mën a jàppale waaye dëgg dëgg dëgg liggéey bi faw ñu ñu xam ko d' abord buñ ko xamee faw ñu nangoo dox jëm ca mooy li nga xam ne mooy subvention yi nga xam ne buñ ci buñ ci jur buñ ci jógul dina sànq suñu budget bi ñu fexe ba subvention boobu naka la ñu mën a orienté ko ba mu dem ci dëgg-dëgg ki nga xam ne mooy sénégale bi ko soxla.